juge ba pare daal dinañ koy jàpp mm-hmm. litre boobee ci mbirum Bandiaki mi daal dinañ ko ciy wóolu jamono ji ma ngi ca loxol yoon te par Jérôme Bandiaki comme étant celui qui a vendu une arme retrouvée chez lui ah nee na ah. nee mi le di bàcc ba ñu gën koo xam ci mbës moo ko jaay arme bi nga xamante ni moom la ñu fekkoon këram te moom mm-hmm. arme bu ñu fekk këram rek arme de qualité <laughs> mm-hmm. waaw gis nañ ko loolu gis nañ ko nee na Sakoki Ka di Papis demi-frère de l'ancien ministre Doudou Ka Doudou Ka arrêté hier mbir maa ngi aggravé nag yoo xoogee jëm nag fu ñu ko foogee wul ah lañ ko foogee woon nag ñoom mhm, mhm. la rek jérôme <laughs> ngay yàbbi la mi sa xol c'est terrible c'est terrible Amina dégg ah. nga jaarale yu nga fu ñu ko foogee mu ne la foogee woon <laughs> ñoomu neen la de. neen la foofu lañ ko foogee. la rek. ñoomu neen la. Ah, ah, ah, ci gàttal jaay. ñoomi neen la daal. ci gàttal daal moom Mbanjaaki ma ngay wax la mu xam. Mm-hmm. li ma naan la kaay wax la nga xam ma wax la ma xam ànd. Mm-hmm. zéro ma ngay wax la mu xam. Mm-hmm. mi ngi balancé ay nit ñoo ngi leen di traqué di leen yàpp sa famille clame son innocence c'est normal fii ku ñu fi jàpp sa famille ni la innocent nga voilà mi ngi noonu. des gilets pare-balles, des munitions et trois armes à feu saisies à il loge lors des perquisitions. Il était détenu. këram nga ñu defoon descente lañ fa fekk ci ay arm ak loolu yëpp ay gilets pare-balles Jérôme mii ku ñu woon demul guerre nga weddi ko. man dama yegoon ne. Jérôme sikk nga torop. xanaa man dama yaakaaroon ne. ba coow li di doog a génn. <laughs> man dama yaakaaroon ne loolu rek. dama yaakaaroon ne Jérôme gendarme la wala policier yàlla xam na. en tant ah. armée man loolu laa waxoon dama yaakaar woon ne peut-être gendarme la wala policier. jërëm jërëm sikk na nag jërëm sikk ah te loo ci xamul nag jommi naa. armée sans autorisation benn ci armée mu yoroon amul am na boo xamante ni amul ci autorisation autorisation moom boo ko yoroo ci armée jàppoon ni saraxe na sa bopp voilà. <laughs> présenté hier au parquet Cheikh Thiam renvoyé en prison Cheikh Thiam mujj nañ ko euh, yóbbu defeere ko. jaara nee na yóbbu bi fi ñu ko jib foofu la. <laughs> xam nga Amina xam ma li nga xam seetloo ko sax man eh, na nga ne. yow ma jël yow jub na fu ñu ko foogee woon ko. jur bi ñu ko foofu la foofu la ñoomi la. jaara daa sikk de. jaara sikk de. jaara daa sikk de. man damaa yor amu dama xam mbetteel amu ci kat. Abdou Kaba Diagne bu ñu nii boo ko boo ko àggate ba ci biir am ñu ko yónni rek. ñoo lal ñoo lal dox ay mission rek. ñoo lal ña ca kaw a ko yónni fa jógee ña fi jógee. ñoo ko yónni woo kon Europe fi mu jëm foofu lañ ko. foofu la foofu la bu commencé di balancer day neex foofu que ñu ci bari dañ leen xëcc woowu leen voilà encore les des chinois des chinois au cœur d'une vaste escroquerie pyramidale en ligne à partir du Sénégal lu toll ci 1811 victimes dénombrées euh, le préjudice estimé à plus de 3 milliards nga ni ma ah. 3 milliards l'opération a été conjointement menée par l'Interpol ñoom ñoo ko dugal seen loxo Interpol ak Afripol police nationale ñu gis ni ñoom chinois yi ñoo ngi doon arnaqué ak di def ay mbir yoo xamante ne c'était illicite ba lu toll ci 1811 victimes lañ ca daal di kiiwee flux financier illicite dans le secteur extractif comment les multinationales passent entre les mailles des filets chinois yi moom temps yi moom nañ suñu réew mi de. mu buñ fi dóorul nit rek dinañ la arnañ. nañ nañu moom réew mi te ñun ah. Sénégal dégguñu ko yow ngay jàng amansion. Hmm? dugg ci suñu réew di def leen neex. amansion ci yow laa koy njëkk a appliqué amee. amansion bi. Hmm? di nga dox suñu année la maa la ab boo nañ dem. <laughs> mu ko ba ci kucca. xam nga dañoo gàtt. Eh, mais lu mu lay wax maa la tuffoo. maa la tuffoo mu la mu la kuccali. <laughs> sa ndigg lay rek. de ñu ñaa ngi lay félicité de nee nañu yuuxu bi foofu la. yuuxu bi foofu la. voilà. yéen leen def nii rek. Mm-hmm. di kuccal. di kuccal. wala ñoo gàtt. ku ci kuccal mu yeewoo ji Chine. Ah, ah dama jàmm man étranger yi ni ñu duggee suñu dëkk bi ba pare nag am sañ-sañ ji def lu leen neex. ëpp ñu fi mm-hmm. am fit. Ah, yàlla baax na. lii quotidien dina baax. massacre de Thiaroye bi nga xamante ne fekkee woo ko de Thiaroye 44. ah yow tamit fu ma koy fekkee. Thiaroye 44 ah. histoire bi fekk na ma fi. ah ah wax ma loo ci xam. parce que Thiaroye 44. ami. xanaa man ñi demoon ñoo dellu si. <laughs> gis nga il faudra que ngeen di comprendre que ni ñi demoon ñoo ñëwaat. yow kay ji demoon ñëwaat nga. man musu man maa ngi doog ay ñëw de man histoire bu ma xam ne bu ma ko fàtte mukk nga ni mun naa ne bokk na ci li li mu traumatisé ci sama vie antérieure parce que dama dem ñëwaat il faudra que ngeen comprendre loolu. te ba tey sax sama sama âge exact yéen xamu leen ko. parce que man maa leen doon toggal trahir yi. maa leen doon toggal. ñoom d'habitude nag ñoom seen lekk du daan am diwlin bu bari. waaw bu fekkee da nga mën na leen wéy dama bàyyi. <laughs> directeur dama la. gis nga laax a bisaab xanaa man maa ko créé. foofu laa ko njëkk a toggee. ami parce que d'habitude ñoom du ñu doon bëgg lekk bu am diwlin. te yàlla am kaani suñu tiraayoo non non du doon am kaani da nga may déglu laaxu bisaab lu tax ma leen ko daan toggal mooy ñoom seen lekk warul bëri diwlin mais aussi xorom si warul ëpp. kaani bi warul ëpp lépp donc war a équilibré parce que dañu war a dem géej ji. Mhm. Abdou Fall xam na li may wax. Abdou yaa ko fekk. jeex na kon yaa fa togg mbaxalu maari. dé déggoo xam la laa doon toggal. attoje laa leen doon toggal étoje mooy toggu joolaa boobu ak laax bi sax bombardement dala faa waroon a mais nag mais tubaab yi yëpp bon gis nga jour bi ñuy def massacre bi jour bi dama leen a toggal ba pare ñu toog mm. waxtaan ak ñoom ma ne leen mm. tey gii li ngeen di kaas mm-hmm. seen droit la dëgg la de mais xam leen ne ñu ñoo leen ëpp doole. damaa ah, ruus à mën leen a boobu. yeddoon nga may wax paree ma rek. dama génn même pas cinq bi am mais tubaab bi def nañ lu bonte ñaaw. avec ah, kon yow yow lañ doon jamono noo tuddoon. man rescapé Khoudia Gueye. man danaa wax sama dund gi man li dund bénéfice la. ami ragal yàlla te tudd yàlla ci liggéeyam. xujje gay laa xawla wala xawata illa billah am yàlla rëbb na ko dul wax dëgg astaxfirullah dafay fore mais nag xoolal massacre bi bu lu métti la mencen xanaa moo tey ji Ousmane Sonko tey ji bi muy woote ci massacre bi daf ma xàmmewul rek mais waroon na ma ci boole maa doon toggal tirailleurs Ami Sege moom boo ko fi déggatee bu ko jooy de. Ami Ami Cissé Ami Cissé. c'est terrible. ñaata yoon laa la woo. yàlla baax na. xujja demal sama bibi day xaw a miin. lan moo doon seen lan moo ah déedéet def na dessert bi bu ñu caa bu ñu lekkee nañ dessertu kay. xanaa maa baaw ñu lekk màdd. yow non non màdd ñoom yooyu dégg na yenn. aliment parce que ñuy yëngu de. aliment yu gras yi ak yu forok duñ ko daan lekk. parce que ah. dañ leen a soxla dañoo soxla woon ci ñoom doole ak force. ah ah donc ah. jumkin daal laa doon defal ay <laughs> jumkin. bi. maam ami say maam ngay waxal de. fraise da ngay maame sa maam yi. samay maam lañ garaaw. <laughs> yàlla baax na ami Cissé ami Cissé ami Cissé lakkale nga ñu. baax na voilà. <laughs> fii def nekkul que ñi dañuy nekk euh, voilà di di soofantal histoire Thiaroye Kan non. arrêté <laughs> ñëwaguñu sax ci affaire bi bu leen bu leen ko yóbbu fi nga xamante ni mbir yi àggu fa. voilà voilà soxna massacre boobee nga xamante ni ah ñun ami day ah. day mbalak rek moom mbalakkat la. Ah. donc bu leen bu leen ko topp ci jikkoom li muy wax nii ak ça n'a rien à voir ak histoire Thiaroye Kaw ku ne xam na ne histoire am amit du seet yàlla mu ko ci li muy wax. Mm. yàlla baax na <laughs> voilà mi ngi noonu Thiaroye 44 bi nga xamante ni am na ay année ginnaaw bu ñu fa amalee am massacre mhm. euh, suñu ay jàmbaar yu bari daal di ciy euh, ñu leen di ñaanal mhm. yàlla fa ñu jëm gën a leen fi ñu jógee mhm. euh, loolee nag chaque année dinañ ko immortaliser waat voilà dinañ ko immortaliser waat indiwaat ko parce que jusqu'à présent vraie histoire yu Caaroy 44 ñoom tubaab bi dañ ko daal di tronqué. Hmm. maanaam daal dañ ko daal di dagg à leur guise expliqué ko noonu Ousmane Sonko temps yi la waxoon na ci sax. Hmm. mbir mi voilà nee nañu des députés français réclament une commission d' enquête. Hmm. lu leer la pour leeral pour leeral mbir mi loolu sax xam naa ne ñun ñoo koy gën a yittewoo ñu leeral ñu nan la Caaroy 44. Euh, daal di woon euh, demee euh, tribunal de Dakar Samuel Sarr bénéficie d'un retour de parquet voilà ba tey euh, ci ci affrontement yi amoon université euh, euh, Assane Seck bu Ziguinchor la ñu daal di ñëwaat ak li nga xamante ni moom moo di wàllum gerte gi nga xamante ni ay ndogal wàcc na ci ci conseil interministériel bi ñu daal di amal ndiki démb. Mm-hmm. Mm-hmm. l'info l'info yéen a kaay ba tey ci gerte gi la daal di ñëwaatee ak ñun démarrage des opérations collecte d'arachide le cinq décembre lañ koy daal di dooree prix bi nga xamante ni daal di nañ koy yokk ba 305 francs CFA. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni décision yu sa daal di euh, wàccee la moom Ousmane Sonko euh, jox leen sax loo xamante ni dafa daal di euh, yom romb seen njort que liñ ko daal di woon proposé El Malick ba tey en action sur le terrain El Malick Ndiaye El Malick Ndiaye damaa juum <laughs> kii dinaa ko kuccal mu rek may dàq wala directeur bu dàq <laughs> yéen ñu bëggul ñu dàq ma yedd leen am ne na ko bu ma dàq accident de la mañana rek demal. bu ma waxee El Malick Ndiaye moom gis ma ko ko xamul ci réew mi. soo waxee a dara dàq. gisatu xuj a dàq na ma. ku ne ma léegi sama sër xujja la tudd. xujja gay ko baal gay yow directeur léegi jël na retraite xujja gay rek. yàlla baax na Ami Cissé yow. voilà mon avenir en jeu ci kër gi dañ may waaj a dàq. Ami Cissé loolu ñu ngi lay bay bayar rek waaye. <laughs> Fane Fane moom trop état di di fa am chambre. nekk <laughs> nekk moom di ko di ko am faat. Sali na ma c'est terrible Sali nekk yow c'est terrible <laughs> et eh, Balla Fall bu ma dépassé rek. voilà mi ngi noonu ñu daal ni El Malick Ndiaye moomu ba tey sur le terrain en action. ci lu ñeel wàllum dem beeg dikk bi wàllum transport bi mm, euh, autoroute euh, front de terre bi nga xamante ni daal daal dina koy inauguré ngir gën a yombal wàllum dem beeg dikk bi euh, ba tey l'info ñëwaat nag ñun ci massacre Thiaro yi député français yi nga xamante ni ñoom ñooy réclamer ab commission d'enquête ñun tey ñuy leeral histoire nan la demee réellement ak nan la suñu jàmbaar yooyee daal di def ba dëddu àdduna Ousmane Sonko moom newoon na dina ci def yeneen gëstu ngir ko ñu daal di leeral li nga xamante ni moom moo di mbir mi ndax jàpp na ni am na ba tey loo xamante ne dañ koy daal di nëbb peu de femmes dans les instances de décision waaw ci la ñu bokk dénonce une euh, entrave majeure à une gouvernance inclusive et équitable ci instance yi gis nañu daal jigéen ñi nga xamante ne ñoom lañu fay tabee dafay daal di néew dafay néew dëgg du yoon aha te jusqu'à présent nag neex dëgg yàlla nañ ko ci réew mi la bokk nañ ko wax te de waaw parité lu ñu lu ñu bokk day dem mhm. dañoo safar réew mi ñu ngi ne bu ñu amul woon émission baa ngi ni ah, la preuve góor ñi daw nañ bàyyi fi jigéen ñi noonu ñu gérer am jom nangoo liggéey. Ah, nañu gën a jox suñu gëdd nag ci réew mi du dëgg. Mm-hmm. maa ngi ono onalu. Mm-hmm. ngay alaaji alaajalu ci di maatu maatulu. waaw loolu yëpp ci mbir mi la. voilà jàmbaar moo tax ñu def lu ñu mel. waaw donc classe salle de classe boo dem jigéen ñi ñëw fa yëpp. Mm-hmm. ba pare di ah. jël pay nag. mais nag attention na du neex nag boo góor ak jigéen tolloo. waxuñu ko de. waaye defal naa ko rek góor ñi lay défendre waaw. woykat bi waxoon ci sa faaru càmmoon la ñu bind day day metti rek nag waaye nañ leen nangul ni ñu ñuy ëpp des fois ñooñu daf maa bëgg wax saytaane waaye bu ñu jëm kaw ma la bëgg a wax bu ñu jëm kaw li a wax moo raw saytaane ñemewu ma ko wax man xam naa li ko wax j'ai compris ba mu jëm kaw ko eh, télé bi tënk na ma comprendre la qui pourra <laughs> sa diggante ak xujja gi dama doon xool nag bàyyi leen ami laa tudd bàyyi leen yàlla baax jëlal sama téléphone bindal ma ci xujja <laughs> da nga ko réccu day am ba tey combat royal bi nga xamante ni moo amoon niki dimanche bi daal di yëngal réew mi ñi naan Modou ñi naan Siteu euh, système bi nga xamante ni ñoore wàllum dopage daal dinañ leen di woolu ngir xool ba xam dañoo utiliser lu ñeel wàllum dopage mm-hmm. parce que ko ci utiliser dina am sanction yoo xamante ni day daal di dal sa kaw démb nag ne woon nañu Modou Lo dem na mais Siteu moo demagul woon euh, Modou Lo daal dinay ñàkk lu toll ci euh, deux millions 30 mille francs CFA Siteu Euh, lu toll ci 2 millions 730 mille francs CFA daal décalage 700 mille francs CFA euh, ci li nga xamante teggi nañ leen ko université Assane Seck de Ziguinchor comme ni leen ko waxee fële rek euh, juróom-ñaari étudiants comme mi ngi noonu jëlee nañ ci ay gaañu gaañu arrestation yi nga xamante amal nañ ko ginnaaw ba ñuy jàmbaarloo ak ñi nga xamante